tey di altine fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 2020 ñu fàttali li ñu fàttewul xamal ndaw ñi góor gu baax gu fi nekkoon gu ñu doon wax maam Abdoul Aziz Dabakh kenn la woon ci jàmbaari lislaam mu ngi génn àdduna bis ni ki tey le 14 septembre 1997 boobaak léegi def na ñaar fukki at ak ñett maam Abdoul Aziz Dabakh def li tubaab naan unanimité amul kenn ku ko bañ li ko ko mayoon mooy éloquence am ak discours fédérateur bi mu amoon jëmale ko ci mbooleem tarixa yi ci biir réew mi waaye it yoroon pusoom fépp fu mu déggaan nar a xotteeku mu jaar fa ñaw ko. dama jàppe sama bopp benn benn benn benn mbedd mu mag. nee na moom dafa jàppee boppam mbedd mu mag. ay këram ko seq. ay kër seq ko. ci ndeyjoor ak càmmoñ. ci wàllu ndeyjoor ak wu càmmoñ. ñu ne ma bu ci romb benn kër bu yàqu boo ci romb mu yàqu ci man ci defar def ko. ku daan liggéey ci askan wi doon benn ba kàddoom gu siiw ga doon lenn lu ñuy fàttaliku ba sunu jonn yàlla tey. mooy tàppe leen xol yi wa taxaabu bi wa taalifi alqulubi nee na nañu soppante itam te tàppe seeni xol muy benn Alaaji Abdul Aziz Dabaax mu ngi gane si àdduna doom ci Seydi Aji Malick Si ñetteelu xalifaam ak sunu maam Safiyatu Ñang mbaaxu maam Abdou foo ko natt jéggi na dayoo di dox tànki jàmm ci mbooleem tarixa yi nekk ci réew mi ba ñépp ubbil ko seeni xol maam Abdou nekkatul ci àdduna ñaar fukki at ak ñett a ngi nii waaye xolu sénégalais boo ubbi fekk ko ca teel naa fàggu boppam jàng xam-xam science islamique ni ko doomu Seydi Aj Malick Si yu bari defee génne ci daaray Serigne Adi Touré terew ko uti xam xamxam feneen ci àdduna ñu fàttali ni moom mooy ñetteelu xalifa Seydi Hadji si ci kaw suuf Serigne Babacar si ak Serigne Mansour si ñu ngi rawante ñeenti fan ndax Serigne Babacar Sy mu ngi génn àdduna le 25 mars 1957 Serigne Mansour Sy mi ko wutu def ñeenti fan le 29 mars 1957 moom it mu génn àdduna ay magam jiitu ko ci peggu seen baay di Seydi Aj Malik doomi maam Sofiyatu Ñang ji toog ci xilaafa gi boole kook dajale njaboot gi ko jege ak gi ko sori demoon ba nit ñi doon ko woowee 40 ans zéro faute dig digalu 1957 ba 1997 bi muy làqu maam Abdou Aziz mësta bàyyee dem ci këru diine yi mboolem yi nekk ci biir réew mi. xam ngeen tey goxi Sénégal yépp tey balaa jënta so ñépp daañ déggandoo ni Seydi Abdoul Aziz si mu Tiwaawoon day tey ma nga julli ca gannaaw sëriñ Abdul Qadir moo ko liqaamal sax. xaw ma dana neex nit ñi wala du neex. nee na xamul day dana neex nit ñi wala du leen neex. waaye aalamu ilmal yaqiini. waaye nee ci xam-xam bu wér fenn ni. anna cheikh al Hadima Les na ci. xàmmewul ak carte de la laïcité pour wax na kilifa diine yi maandu ci liy doxal cité bi maam Abdou daawul doxe noonu daawul ko xalaatee saa wax ko ci clairvoyance bu amul Ben sikisaka dana daana wax ak député yi di leen fàttali seen rôle daana wax ak kit jàngkat yi étudiants yi di grève mu sol Latlin laaj leen bëgg tension yi bu ñu le 23 juin 2011 bi Sénégal jugee ticket présidentiel député yi biir assemblée nationale sénégalais yi ci mbedd Abdou Aziz Dabakh mon fay coow assemblée bi def non. Néna na su ko defee assemblée bi mel non. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. Way waaye ku dem ca président Abdou Aziz Ndaw ku fa lire projet bu dul dëgg. su présenter, présenté lu ngeen waré a na ngeen ko seet. Way way bu ñu nee tee wote nangam seet len ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple yi. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah yéen nag. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen jeexal. allahumma salli ala allahumma salli allahumma salli 40 ans zéro faute yombul xol bu ubbi. fekk ci maam Abdou génn na àdduna waaye mu ngi ci xol yi boroom daaru habibi ya taybatun taabat li tibi usuliha wa madinatan rabbu sama sammaha jikko yi ko ñépp séddeel mooy mbaax ga woyof ga nekk sëriñ gën a nekk taalibe ndax suufe am yar bëgg ko xool sopp ko Sénégal yépp àndandoo bëgg ko ba tey ñu ngi nettali discours ba mu defoon ca tuubaa ba jooyloo murit yu bari mam Abdou yemu ca woon daana dem ci mbollem këru diine ci biir réew mi lu ko demee ni Touba Njaasaan Ñaseen Jàmmalaay chanaba alwar ba ci Dakar seet ci quartier ni ngir réew mi doon benn boo jàqee mbaa nga jaxlé xamoo foo jëm boo dégloo Abdou Aziz mu mel yow lay waxal ndax ay discours ba tay mu ngi nek d'actualité. yalla na yàlla rafetal làmmiñ ak lepp lu ci jóge. le 14 septembre 1997 mu am 93 ans wuy ji boromam ñaar fukki at ak ñett ci tay Sénégal di fàttaliku maam Abdou Aziz Dabakh te di ko ñaanal naan ko maam fu ñuy jëlee tey ku mel ni yow bu askan wi soxlaa nga waxal leen su seen ronkoñ génnee nga fompal leen maam Abdou Aziz Dabakh yal na yàlla xare ko ci aljana yi gën a kawe te yokki leeram jërëjëf Dabakh miftaaxul hudaa fanhad ilayha waqtanim li liqaaha